ñoom droit moo leen fa yóbbu c'est pas de l'opportunité ou bien de la nécessité non. mais est-ce que gisoo aussi au nom de la séparation des pouvoirs aussi ñoom waruñu mën a àdd. ils ont violé la séparation des pouvoirs pourquoi c'est pas au juge de faire une nouvelle loi fu mu par ban texte moo ko le le droit du du c'est pas ce qui se fait c'est ce qui doit être fait. a qui doit être fait est clair dans le texte le conseil ne peut pas se mënul mënul prononcer ou délibérer tant que juróom-ñaari teewu teewuñu ñu prévoir des empêchements yoo xam ni c'est définitif et des empêchements provisoires et pourtant loolu laa wax maître Ismaïla Madior Fall dindi na ko yow loolu ngay wax. loolu lay ñëw noonu non non bokkuñu gis-gis ci côté boobu. Mm, mm. parce que man je ne suis pas quelqu'un boo xam ni waxoon nga ne sax ne président mënul def troisième mandat. tey bu ñu la gis nga man gënuma jàng kenn mais dama ne gënuñu ma jàng ainsi que d'autres qui sont là très bons. gis nga lu set wecc boo ko bëggee raxasaan da koy tilimal y a l'esprit d'une loi mooy lu tax ak yooyu. ak la lettre li ñu bind. li ñu ci bind loolu bu bu bu fekkee le conseil du président Ismaël Madior nee na amoon na fi loolu ngeen dégg. Mm-hmm. neel bokkuma ci. moo gën du man rek deuxième chose nee na le président Kéba Mbaye am na yoo xam ne fekkee wu ko woon. jurisprudence en fait. mais ça c' est de l' empêchement temporaire. c' est pas de l' empêchement définitif. bu fekkee bi dafa voyagé woon nekk Paris wala mu feebar wala c' est temporaire et d' ailleurs ça <laughs> y a y a sa position da koy wax. troisième chose mooy wax Ismaël Madior Fall en droit pourquoi on ñu jógee ci cinq membres conseil constitutionnel avant que président Macky Sall ñëw ñu ñëw léegi si juróom-ñaar pourquoi defuñu juróom-benn pourquoi defuñu ñeent pourquoi defuñu ñaar parce que ñu koy def en nombre impair et la voix du président euh, du conseil constitutionnel mooy départagé mais si vous le mettez en nombre pair deux yi nee nii deux yi nee nii day bloqué l'institution alors cinq moo fa nekk cinq minutes moo ñu sa met donc il faut qu'on avance xam naa ni foofu moom côté droit la foofu foofu mu ñëw dafa laaj xóotal bu baax a baax te juriste yu mel ni yéen euh, ku ci nekk am nga ci sa sa sa sa xalaat alors local yi il faut que ñu wax ci ak AG jot na sànq mi ngi def clin d'œil waa Podor euh, AG jot na fan la toll ci par rapport ak élection locale yooyu xam naa ni ñoom dima dina ñëw ci naka nga gisee ndax locale yi dina amoon déet bon ce qui est extraordinaire à Podor fi nga xam ne fa laa juddoo également mhm. mu nekk une ville boo xam ne rëy par son nom bu ñu nee Podor rek xam nga euh, voilà. Hmm. mais c'est une ville boo xam ni euh, je pense que amuñu sax 7000 électeurs. Hmm. une ville d'à côté qu'on appelle Ndioum moo ëpp électeur Podor te Podor mooy capitale départementale. Hmm. mais dafa am symbole. tey ce qui est extraordinaire lu sotti am borom. le président Macky Sall man maa ko dugal Podor du keneen.

pour ne kii pour campagne électorale présidentielle mu defee ko njum dama ko dugal Podor pour mu jaale ji ñi nga xam ni ils avaient été tués ci affaire foncière li ngay wax am na solo mais man tamit li may laaj daf ma amal solo parce que gis nañ président mu dund loo xamante ni mosu ko dund foofu parce que dafa ñëpp jàppoon nañ ni côté boobu gongo est-ce que yow dafa am loo ci loo ci dox je vais vous dire très précisément moo ma mayee rek da nga xam li may wax parce que raisonnement cousu la waaye xam nga heure léegi loolu am je me retrouve man mi ko xam ne maa ko doon jàppale seul Podor parce que ñu nekkoon foofu ñu fa nekk tey fan lañu nekkoon avant ah léegi de moom am na fa ay grosse pointure foofu. Ah, ah, ah, ay loolu am ay ñeneen macha allah ma ne. xam hmm. nga li ñuy naan grosse pointure man tiituma kenn. Hmm. l'homme le plus puissant du Sénégal dama ko respecté. Hmm, ña fa nekk nag ma nga. Euh, ma ne. boobu ñuy xeex pour que président Macky Sall toog premier mandat. pour ñu bëri gis nañu fi leen. donc ñëw nañu transhumé ñooy àgg mu affaire Moussa Poussel <laughs> man meruma ci parce que. àdduna moo demee noonu surtout politique. ñooñu bu doon son sago président Macky Sall du toog mukk. ay naan ma sœur Aïssata Tall Sall que je salue au passage. mais sur le plan politique su ñu amee divergence dama koy wax comme ni ma koy waxee président de la République. de contestation. deuxième chose. man xaaruma ba président Macky falu en pour ma jógee PDS ànd ak Macky président Macky sama frère Racine Sy man dama xaar damay gëm li ma gëm. toog fu ma toog j'ai horreur de la transhumance ko wax dama ko mës a yàlla bu nee nii la. nii la am nga say conviction yàlla nee na nii la mais respecte. mais mais xam nga loolu na ba pare waaw léegi nag. affaire la. Fouta Tampi mais c'est sûr parce que ñenn ñi nee na amul sax doléance foofu Fouta Tampani mooy Fouta sonnul. Euh. bu Fouta sonnul woon. da ngeen gis li ngeen di suuf. je pense ça a été plus chaud. justement boobu tournée bi booru Kaffrine. Mhm. gis nañu de la violence boo xam ni ñi ñi di tëb ay nervi di dal ci kaw yenn nit yi te yooyu yëpp impunément. defe naa ne sax boobu muy génne image yooyu nañu président di naan gisuma ko. Mhm. des choses comme ça. Mhm. ma ni Fouta dañoo sonn. gis ngeen man wax. la débat il faut ñu yëkkati ko tuuti. bu fekkee désenclaver une zone ma nekk ci responsabilité wala ma nekk même ci politique de développement parce que politique politicienne xaw ma ko. Podor dafa nekk ville boo xam ne par exemple ku ko xam route nationale bi fii la jaar à vingt kilomètres la Podor nekk ni da ngay ñëw route nationale da wàcc vingt kilomètres. dugg dellu si waat muy quarante nga doog nekk sur la route nationale. Mm-hmm. l'enclavé. on est capitale départementale. lu ñu defal waa Thiès fees dem lu ñu defal waa Ziguinchor Sénégal dem dikk lu ñu defal ñeneen ak ñeneen ci Sénégal bi mais ñu defal ko waa Podor. léegi jóge naa fa dindi nañ ko lu mu set wecc alors euh, euh, local yi parce que tono bi malheureusement moom moo jeex ndax alliance yi nan lay demee yow tey ndax dañuy xaar AG jot na ànd parce que gis nañu benn jamono euh, yow ak Ousmane Sonko benn benn jaxasoo bu amoon ci seen diggante maanaam lëkkaloo hmm. ba ci sax Barthélemy Diaz bu bu ci bokkoon ak yeneen ndax dañuy xaar tey une large coalition de l'opposition une autre coalition va se faire effectivement ñi la ñu bëgg a xam non non kooku moom xam nga man lu sotti ñu da ko wax ci ñan ngeen commencé di dox de toute façon ñu ngi koy dox ak ñan ak ñan. non non lu ma maa jotee daal daal leen ko wax mais xam leen ni. y aura une coalition boo xam ne Moussa Diop ak ñeneen wala ñeneen ak Moussa Diop daañu ànd. d'accord sur des choses très précises. d'accord c'est notre devoir. alors malheureusement malheureusement vraiment waxtu wi waxtu wi moo ñu xoj xam naa lu ñu bëggoon waxtaan ak moom. Uh-huh. Euh, bari na lool maître waaye yoon yamul ci benn foog nga ñëwaat ñu gën a yaatal. Euh, ndax yow xam nga ne Sen TV mooy sa kër la ñu di la nuyu bu baax a baax di la gërëmaat également ci disponibilité bi ñu bàyyi la nga tàggatoo très rapidement. donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di remercier sénégalais yëpp ci seen. écoute. te xam ni sa fait quatre mois dégguñu ma. Mm-hmm. parce que maa ngi woon ci leneen. Mm-hmm. leneen loolu c'est simple dama demoon jëliwaat sama liggéey. Mm-hmm. après bien entendu événement bi nga xam bi nga yàlla moo ko décidé te kenn mënu ci dara. di ñaan yàlla également jàmm am ci réew mi et que le droit ak lu war a def. ñu respecté ko. lépp day jeex. di souhaiteel sama président de la république jusqu'en deux mille vingt quatre muy le président Macky Sall. mu génn par la grande porte et non par la petite fenêtre. loo gis day jeex. li nga xam ne jël na ko ndénkaane ci président Abdoulaye kee jël ko ci Abdou Diouf Abdou Diouf ci Senghor et tout ceci. bu mu def moins bu mu def moins. parce que am na lu mu def si si réew mi. Hmm. te bu mu ko yàq uniquement par des gens yoo xam ne defe nañu bu demee c'est fini. Hmm. te kaddu tënk na borom. Hmm. wala mu ngi droit te kaddu tënk na borom. maa leen di gërëm di leen sant. ñu di la gërëm ñu itam mu nekkoon ganu émission seen show maître Moussa Diop di président bu AG jot na gërëm ko bu baax a baax gërëm itam ah, ñi nga xam ne ñoo ñu gunge woon ci émission bi di ah, Fatou Abdou Ndiaye ak Ndeye Dimet Ndaw waxtaan bi amoon na solo mbokk yi jox leen